lu seen ànd ak télévision Ibsen TV mbokk yi xarit yi daleen ak jàmm seen jotaay xibaar ñu dooree ko ak si soxla ñaari njiitu réew yi di Macky Sall ak ki fi nekkoon njiit di Abdoulaye Wade si jubóo gi nga xam ni amoon na si julli ubbiteb jumaay Masaalikul Jinaan si ndigalu xalif général des Mourides di Sëriñ Muntaxa Mbàkke mi leen jubaale woon si boobulee julli bay day mel ni ba tey ndigal loolee jëfe nañ ko bu baax ndax bu ñu sukkandikoo ci xaatim bu bàyyeekoo ci parti démocratique sénégalais mi xamal ay militants am ne kii di Wade dina wuyu ji ki nga xam ne mooy Macky Sall ca palais de la République samedi yemoo ko 12 octobre 2019 bu 17h jotee ñu bàyyi leen ngeen liir lii di xaatim bi. mu ngoog ñoo ko gisandoo mooy xaatam bi nga xam ni bàyyeekoo na si parti bu mag bee ngir informé ay militants am que ne moom Maître Abdoulaye Wade dina wuy ji kii di Macky Sall ngir ñu séq ay waxtaan dëggal jubóo gi nga xam ni amal nañ ko si ndigalu sëñ Mountakha Mbacké si ubbiteb jumaa Massalikul Jinaan mbokk yi li leen di loon seen jotaay xibaar dina jox di daje beneen yoon jërë ngeen jëf